dañoo bëgg indi suñu xalaat ci réew mi doxantuwaale euh, ñëw ci diggante dex gi ak géej gi fii lii ak dex la géej gaa ngi nale euh, doxantuwaale waxtaan ak sénégalais yi ci situation Sénégal euh, <clears throat> mbokk yi damaa gis benn photo ak benn texte boo xam ne nii maître Ngagne Demba moo ko bind ne moom dafa exilé ji Mauritanie ma kontaan ci loolu nag parce que ko am xale bu toll ne Maître Ngagne Demba Touré jàng am ay diplôme te maanaam yow ci ngay yëngu li ngay yëngu yow nga xam ne mooy mbiru justice moo yor am réew réew moo leen gis mu baax fi justice baa baax réew moo leen fi gis mu bon fi justice baa bon mbokk yi maa tax ngañ doon Touré lii da koy yéex a def waaye nag gannaaw def eh, def na ko te kenn jàpp ko rek baax na parce que bu toogoon it nee ñu def Ousmane Sonko rek la ñu mujj def ko rey ko politiquement ci xale bu ndaw bu toll ne moom kon lii mu def bonne décision la jël. décision bu jël xaw ma ko xaw ma ko ko ko ko ko euh, conseil waaye man lii dama cee d'accord parce que nag bala nga ne naam ne fa gis nga moom bala moo mën a servir am réewam maanaam daa nekk ci bitim réew comme ñoom Kona ñoom Ousmane Diagne. gis ngeen képp koo xam ni ja ragal nga ragal nga ñu jàpp la génnal dem exil dem leen ba Mali dem leen ba Mali yéen seen cadre dem leen ba Mali ak xale yi di yéeg ci gaal yi bàyyi leen gaal toog leen xeex ak xeexal réew mi ba am indépendance wala ngeen dem Mali wala ngeen dem Burkina Faso ak vidéo yi nga xam ne mooy xew senegal ak injustice bi xew senegal yóbbu leen vidéo yi ngeen ñaan asile politique dem Canada Canada dañoo soxla ay chauffeur dañoo soxla ay chauffeur yu bari ay junni junni nga xam ne bu doon piyee moom booy ñaan di am boo yàlla dogale boo yoree nationalité sud africain waaye nag loolu li ko waral mooy sud africain dañoo la jëlul kenn ci seenum réew looloo tax sud africain ko am am nga sansu visa boo ko ñaanee da nga koy am bon gis euh, xale yii di dem ci gaal yi wax dëgg yàlla lay xew Sénégal képp ku fa yeewoo wallaahi sa bakkan mi ngi ci xottu xaal ndax waxtu nekk mën na laa rey ñañ fa rey gënoo leen ñañ fa rey gënoo leen a doon jàmbaar dara nga leen gën a kon maître Ngagne Demba man damaa kontaan ci li mu def asile politique asile politique bee mu def ak ma cee kontaan parce que xale bu ndaw bu tol ni moom jàng ay diplôme am ay diplôme te xam ne réew mi mu nekk mënu fee se métier convenablement ndax réewum corrompu la xool leen li ma leen di wax géej gi ak ak dex gi ñu ngi nii fi ñu tàqali ko euh, bokkul nag ak ak euh, Cape Town nga xam ne da ngay gis géej gi ak ak dex gi fi ñu tàqali ko nga xam ne ñii sax nee nañ euh, am na laay bu nekk ci suratu Rahman fabi ay àllaahi rabbikumaa tuqsimaani marajal na yaltaqiyaani bar barzakhun laa yabghiyaani am na ñu wax ne foofa la wallaahu taala ahlamu waaye daal xam naa ne foofa géej ga Euh, ndox ma ak euh, ñaari géej fiñ fi daje maanaam da ngay gis ni ndox yi wuutee mu leer nañ mu leer nañ kon aaya boobu buñ ne euh, mu ngi ci mu ngi ci Afrique du Sud a ah, du neex a weddi ñu ngi koy tudd faneen waaye daal laaya boobu ci suuratu Rahmaan ngeen koy fekk fa bi ayyi alaahi rabbikumaa tukazzibaani marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzakhun laa yabghiyaani laaya boobu suñu borom nee na ñaari ndox yooyu duñ laale bis ñu laalee rek àdduna tukki mbokk yi ma ñëw ci li ma tax a jóg maître Ngagne Demba Touré man damaa kontaan ci li mu def parce que xale bu toll ne moom euh, réew mi ma nekk muy Afrique du Sud euh, gis ngeen ka euh, jamono yi ñu tëjee mandat naa ci kaso bi gis nga mboolem dirigeant yi fi mos a jaar 94 ba léegi may wax ak yéen ñu ku mos a yor réew mi wala ku mokk ku mos a bokk ci ministère yi ñu ci bari dañoo excellé ji woon. ñii Mozambique ñii Malawi ñii Zimbabwe ñii réew yi sës yëpp dañ faa excellé ji woon. parce que lu tax mooy xamoon nañ ne ku fi toog toogoon yooyu jamono danañ la jàpp dugal la ci kaso bi comme niñ def Mandela kon loolu di décision boobu ñu jëloon tey lii la leen jural indépendance totale la leen la leen jural loo xam ne nii seenum réew ci la ñuy toog di fa tedd sonaluñ kenn ci réewum kenn damaa bëgg yéen ñu may seetaan ak waay mën a nekk est-ce que gis nga fa sud africain bi ga ak gardaam saak di am bi parce que gis nga ba si daafricain bu nekk si usine di fa liggéey doo ko gis parce que lu tax le minimum am nañ ko seenum rew seen jamono bii ñu am bu weer dee ñu mosal leen ci aslëf mbokk yi xale yi maa ngi leen di jox exemple gis ngeen vidéo yi daw ci internet bi bu ngeen ci jaaree da ngeen di am visa exil politique gis nga bu dee ci tarixa yi seen nervi yi ñu yor parce que sànq maa ngi gis benn vidéo ab baay ab di di ci ak vidéo ngeen di dajale vidéo ngeen di dajale ne diine ja amuñu jàmm diine ja amuñu jàmm politique ba amuñu jàmm nun nun xale nun mi ngi ci mi ngi ci not our life is very dangerous in Senegal right now the politicians they are ready to kill us, all of us. Also about the religion, uh, they, they, are, they have their own law. If you don't if you don't agree with them, they can kill you anytime. They can kill you anytime. So uh, that is that is why we want to, an exile in in foreign countries. mbokk listen, Sénégal ku fa nekk rikwaay biir Sénégal nag bu ngeen fa déposé visa du ngeen am du ngeen am parce que moy intermédiaire yi nek ci ci ambassade ñom ñoy ñooy kale seen visa lek seen xaliss te dar du ngeen ko am mais dem len dem len Mali wala Burkina Faso bu ngeen fa démé kep ku bëgg def exil politique wallahi bo amé ay diplôme jàng boo am ay diplôme boy ak booy àgg la may. parce que xamnañ ne mané vidéo yaa ngi daw ci internet bi gis nañ lépp gis nañ lépp gis nañ li xew Sénégal loolu nag boo dajalé ay fake preuve vidéo andil vidéo yoo xam da ngaa gis ni toroxal ay nit moo xam ci tarixa yi la moo xam ci politique bi la dajale yëpp ci sa téléphone. na nga fexe nag bala ngaa génn ah, ah, booy génn ah, réew ma ca booda ba ca ambassade ca nu ñu ko suulee frontière ba jar na sax nga bàyyi ko fi bàyyi fi vidéo yi ak say xarit nga xam ne même buñ nangoo téléphone bi même buñ nangoo téléphone bi ci yoon wi parce que xam naa Sénégal damaa xam Sénégal Sénégal laa juddoo yaroo fa màgge fa. xam lépp nu mu demee gis nga sop téléphone bo dajé say vidéo bo nopi bu ko yobbu bayiko fi bayiko Sénégal ak sop xarit ko xam doyna la nga nga nga dem bo démé ba Burkina Faso wala nga ag, Mali mu yónnee la ko bu la ko nga dem demal demal ñaani visa da ngay am da ngay am bu len ragal gis ngeen visa nit rek moko am nit gis nga golay amu bu soxla wuñ visa te ñom ñofi gëna nuro ak nit kon bokk yi gis ngeen Sénégal lee fa xew maître Ngagne Demba Touré ak képp koo xam ni doon nga cadre ci parti bi ndax parti bi amatul ko ko xeexal parti bi néewal nañ ko doole askan it nangu ko askan wee ko nangu de parce que lii nii askan wee ko nangu ñoo ko seetaan waaye nag lu waay lu waay ren di soloxo lay naaj gis ngeen jaaxaan di saw du mooy naq borom gis ngeen senegal yi nangu ngeen jaam koo xam ne nii wallaahi Macky fa mu jëm ak yéen xamu ko fa jëm ak yéen danay sàpp ñëpp ay jaam fukki nit ak juróom ñoo arnak senegal 17 million sénégalais ñu arnak leen te ñoom ndeysaan xamuñu ne sax ñoom dañ leen arnak xamuñu ne sax dañ leen arnak xam nga buñ ko xamoon rek yaakaar naa dañ génn xeex ak ñi leen arnak mais xamuñu ko dax lan mooy sénégalais ci boppam na ma yàlla baal moo du nit waaw xam nga dëgg rek neex. parce que nit day day xëy ci lu ko amal njariñ di gont ci lu ko amal njariñ waaye Sénégal fi ñu toll ñu ngay waajal màggal ya ak gàmmu de ñu ngay waajal màggal ya ak gàmmu ya ak làmb ya ak musicien Youssou Ndour loolu la ñuy xalaat de loolu moom loolu ci la ñuy rey seen bopp waaw wow askan nag lan lañ bëgg wow askan lan lañ bëgg ko xam luñ bëgg man du ma saaga kenn man romb naa fooy saaga waaw man li ma daan dugal sax benn benn naan nangam daan rey ndey si fër yi taal leen nang loolu sax bàyyi naa ko parce que nag kenn ku nek da nga am nawle te peut être mën am lool neexul samay doom sax kon deug deug loolu sax bayin aku ko waaye wax sama xalaat ci rewmi sama xalaat ci rewmi dina ko wax moy yeen ku len wax ne len yeen ay nit lañ len jappé jappu wuñ len ay nit ay golo lañ len jappé ay golo lañ len jappé groupe groupe malfaiteur bi nek Sénégal politico maraboutique bi nek Sénégal bu ngeen ko fa billahi da ngeen gëna torox man mom askan wéma gis né gisatuma sama bop man may ñëw Sénégal di jaxasoo ak ñoom ndax nag yàlla du ma teral ba pare may teddaleel sama bopp loolu du ma ko def du ma ko def yàlla du ma teral ba pare may teddaleel sama bopp ndax yàlla ba may bind te bind ma woon pour toroxal ma mbokk yi tey lii rek laa ne woon dinaa ko waxtaan ak yéen li wér te mooy képp koo xam da ngaa préparé woon di bëgg a dem ci gaal gi la risque la bul def bul jaar foofu demal jaari Mali dajalee say vidéo bàyyi ko bàyyi ko ak sa boko yoré man nañu nang sa téléphone ci yoon wi bayik ak sa xarit bo àggee ba Mali bo wara dem wuti visa mu yónnee la ko ci sa téléphone nga dem bo démé nga bolé vidéo yépp def ko ci clé USB dem dem joxé ko né len li moy sama preuve my life is in danger right now in our country now I want to live for good in my country I want to live in Senegal for good I don't like anything in Senegal. Rest of my life. Manam nga nga xool ku dégg anglais bu bindal la lettre anglais boo xam ne ak français parce que ñaari langue yooyu doonte français sax li ko dégg bëriwut te ñi ko dégg ay tappale ay tappalekat lañ waaye nañ nañ ko def anglais rek def ko anglais ba pare nag publier ko publier ko ci sa page Facebook publier ko ci sa page Facebook Assalam ay how are you i am ok publier ko ci sa page Facebook bu ko defee ñu euh, àdduna bi yëpp tamit di ko seetaan nanga nga fexe ba boobu na nga ko publier ci sa page Facebook bala ngaa dem sax ñaani visa na nga ko publier mais nag ah, bàyyi doo dem Mali de parce que boo nee la soo ko publier léegi coono mën na la cee fekk coono coono mën na la cee fekk kon bul ko publier da ngay ah, bàyyi ba àgg Mali wala Burkina bu boobaa nag nga doo ko publier ci sa page Facebook stratégie ngeen di def ba génn réew mi rek waaye bu leen rey seen bopp donte réew mi sax tund fi moom ak dee dund fi dee la ak njaam la waaye bu leen rey seen bopp kon mbokk yi euh, maa ngi leen di siyaare yéen ñëpp di ñaan son borom tabaaraka wa taala xam Sénégal gee daal ñaata nga Demba Touré daal décision bee mu jël kontaan naa trop yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla aar ba mu dellu si waat Sénégal ne nekk chef de la magistrature Sénégal jiite justice Sénégal loolu rek laa koy ñaanal jërë geen jëf.